xale jigéen yu bari fii ñu ngi fii dañ dee dem ba jànga ba dem grade 12 ku dem ba mu sit grade 12 su paree foofu rek toog na léegi lu moo xaar léegi jëkkër mu ñëw taka ko because li fu mu nekka ni am na yut yu bari ñu ngi fii jeexal nañ grade 12 waaye amuñ lu ñoo liggéey léegi lu ñu yaakaar léegi tey góor su ñëwee ñu ne dañoo jox guru danañ jël guru because gisaatuñ lu ñu yaakaar fu ñu mun a téye loolu jafe-jafe boobu man am xam naa ko si gaay